jërëgeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV di seen bi nga xamante ne bi 100 pour cent làmb la ñuy def tey nag fi ñu nekk kenn du leen ko présenté ñu ngi fii ci euh, marché Njaareem fii ci Géejawaay seet si benn champion ba nga xamante ne bi nag macha allah ndaanaan la su baree mu neex wante tamit su bàkkoo mu neex kooku mooy Bou Siteu ci kanam tuuti da ngeen ci xam dara danan dugg ak moom ci biir waxtaan waxtaan ci carrière am wante danañ waxtaan ci li nga xamante ne bii moo nekk ci kanamam ci làmb champion ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax a baax di sant tamit waa Massa Ndiarème xam nga di sant tamit Moussa Sow mii tey émission place laa ko indi xam nga nekk ni ko xam day jàpp samay combat même bu dul làmb xam nga di si jàpp bu baax di bëggee tamit mafia bi gars yi nii xam nga ñoom juma xam nga ñoom xeeñal gars yi mafia bi la. ok bi ñoo nekk nii ci gannaaw quoi sama ñëpp cat ba cat ziar naa Omar xam naa kee sunu mais daa ñàkk jom daa war a tax jaw Omar Dieye waaw moo nekk nee toog maa ngi koy bëggee bu baax sama waay la jaajëf jaajëf champion gannaaw nuyoo bi ak li nga xamante ne mooy présentation gars yi euh, dañuy ñëw ci yow euh, champion kañ nga dugg ci làmb ban année nga dugg ci làmb exact waaw maa ngi dugg si làmb 2016. 2016 laa dugg si làmb. waaw 2016 dugg si làmb quoi. si laa bëre nga dugg ci làmb commencé mbapat wala da nga commencé làmb rek dugg ci. avant ba pare nag soo ko mais arène bi moom 2016 laa dugg mais am bëri naa mbapat nag. waaw xam rek ku wax saa ko joor xam ne xam nga maanaam si moom lañ kiiwee quoi si ginnaawam lañ doon topp. waaw maanaam lu ne si ñun si bëre yëpp Saako Yor moo ko des si ñun. waaw mbapat fan ak mbapat fan ak fan nga ci jot a jaar lan lan nga ci am quoi. waaw mbapat jël ci mbapat. mbapat jël naa si ay trophée yu bëri jël naa ay trophée yu bëri ba que ay saako ceeb ak lépp ay tournoi bëri naa ko. ak hmm. Sane Ndiara Mbir man maa ko toj. wallaahi ay Ndiara Mbir man maa ko toj. Hmm. xam nga waaw maanaam bëri naa mbapat bëri waaw xam nga 2016 si laay soog a dugg si arène bi. waaw di bëggee Zal Oni bu baax moom moo ma gën a poussé pour ma bëre arène di bëggee tamit Siteu sama turandoo moo ma defaral licence. Euh, mi ngi noonu mais mais mais champion est-ce nekkul yow dan laa dan laa da ngaa ñëw rek ñu burleel la étape quoi fa nga waroon a jaar dëgg-dëgg jaaroo foofu noonu est-ce que rampé nga dëgg. rampé bi tax ñuy wax. non rampé naa mais xam nga rek boo nekkee xale xam nga di mobiliser loo xamante ne nii xam nga. day dem sax ba nga xamante ne nii sa mbapat sax su fu mu war a egg ma jugee géejawaay bi ñëppay jóg. Mm-hmm. wallaahi su ma jógee gars yi dañu may jog di ma dooleel xam nga rek xam nga dañu doon bañ tamit loolu yàqu xam nga moo tax sax ñu arrêté mbapat bi xam nga teel a dugg si arène bi nii mooy loolu. mais dégg naa dégg naa bi ngay bëre mbapat nag mafia bi nga doon àndal gars yi dañuy ruube de. waaw gars yi moom ay yoola man lañ. gars moom gars ay ñoom mbapat bu ñu dem toj ko. mbapat bu ñu dem dañ koy yoole gars yi dégg lu ma la damay am combat sax adversaire bi ñëw ba si làmb ji gis mafia bi nii sax ruux. dégg na man su ma bëree kii su ma ko daane dañ may rey. ah bon billaahi te parce que mafia la gars yi su ma jógee dañuy jóg dañ may dooleel su mel ne ñoom Thial Mber gars yi ñoom sëñ Modou mafia bi ñoom Pape Diop set gars yi dañ may dooleel ñii maa ngi ñoom démb la lambu làmb ñii làmb boole wu ngi ñoom. wallaahi dëgg la làmb boolewul ak ñoom léegi ñu jógee ci mbapat bi dugg ci li nga xamante ne bii moom mooy arène bi arène bi ñaata combat nga defagum. arène bi bëri naa huit combat nag. huit combat ñaata victoire. six victoire deux défaite. kan ak la daan. Ardo moo ma daan ak caatu rëbës. Ardo ak caatu rëbës. ñaar ñooñu rek ñoo ok ok mën nga mën mën nga ñëw laa ci ñaari combat yooyu lan moo tax nga perte ko. waaw li tax ma perte ko mu muy dama doon ñëwee ak fëggu xam nga xam nga rek fëggu jeunesse. Hmm? moo loolu. looloo waral sax ak xam nga rek bëgg a éliminer sama adversaire. sa combat nan la demee woon. waaw combat bi at bi dana pii ma dox maamu si kawam. Mhm. xam nga rek indil ko affaire agression xam nga ñun moom man moom mooy loolu ñun agression la ñuy dund. ah non déedéet waaye agression. waaw maanaam soo déggee si lamb ji agression ah, man sama combat bi agression laa lay tegal. teg la lu métti. déggoo ma de man booy xam nañ xam nañ ma bu baax a baax man at bu ne pii dama lay indil agression bu saf-saf. li njaala arbitre soufflé nga dox ci sa li njaala nangu sa fit nangu victoire bi yi indi ko biir géejawaay ñun moo loolu ma ragal de. waaw mais waaw mais seen champion bi ba mu tegalee loolu caatu rëbës jigu ko de dafa tegal caatu rëbës loolu caatu rëbës tegal la lu métti. waaw caatu rëbës la gën a métti rek booy boobu dafa sadik. non boobu dama ko dóor ba muy daw daw moo tax sax mu daan ma parce que xam nga dama bëggoon xam nga boo bëggee éliminer nit. xam nga rek mu daw nax ma jàppante indi bëre. Mm-hmm. mais comme dama indi woon dóor mu daanu. ndax la xam nga rek affaire yi ëpp waaw mooy loolu. Mm-hmm. waaw mais boo ba léegi ñuy tegale suñuy ndam waaw maanaam. waaw nga jógee foofa nga jógee foofa dugg ci dugg ci. bu ndaw ñu dugg ci victoire yi quoi. nga am six nga am six combats six victoire. six victoire waaw. ma daan Boy Diop. Boy Diop fii nii Sandiane lamb banlieue. Mm-hmm. ma daana jadi jadi. jadi jadi daan Boy Texas. Boy Texas daan Gambien bu rëbës. Gambien xam nga daan nëpp. nëb waaw dem Demba Ndiaye ma daan bu ndaw. nëb xanaa moom xeeñ na de. waaw kay ba may bëreeg moom kay xasaw xunu laa def. ah kuy bëreeg nëb rek moom nëb moo xeeñ wala yow yaa xeeñ. xeeñ mais kuy bëreeg ku nëb. boo ko boo ko laalee sax. da ngay xeeñ ngay xeeñ. moo tax jour boobu saf na ko sàpp. Mm-hmm. wallaahi lu métti laa ko teg yobu ko top 5. Mm-hmm. wallaahi. Mm-hmm. ñu ñëwaat si sa combat yooyu nga jot am ay ay ndam. Euh, ban ndam moo la ci gën a neex. waa ndam bu ma si gën a neex nag muy sama combat maag bu ndaw mooy bi ma mujjee bëre nii. bu mujj bi waaw ndax combat xam ma rek daa am su lu ma jugee woon ma ñëw xam nga. Mhm. gars yi xam nga rek ngay bëre koo xam te nii xam nga ay ponkal la daan. waaw nga ñëw daan ko maanaam loolu. Mhm. lu neex la ko mhm. waaw. noo noo woon ak moom. waaw nuñ bëre moom dama ko jàpp indi ko dama ko dóor dóor yi métti. jàpp ko zongale ko dóor ko suuf mu rëpp ma daw wër ko ndomba. dóor ko ba mu tëddal boppam. waaw seetaan naa combat bi gis naa nga wër ko ndombo di di ko dóor ba mu daan waaw man mm. mm. nga jógee nag ci euh, bu ndaw sama gars yi seen champion bi dafa dugg ci combat ba nga xam ne dama naan Mansour dafa dugg ci rapitub Samba Law bi dafa yeb client ba nga xam ne ñëpp ko fi bàyyi damay dégg nag mu naan waa ji paala mais waaji ji ñi mu daan ñoo la mën téeméer yoon ak juróom-ñaar fukk juróom-ñeent Malick Ndiaye 37 fu la war a bëri sa combat ak Malick waaw sama combat ak Malick gis nga rek muy maanaam samay morom mënu ma leen a jeexal ndaxte parce que làmb ji doo du ma fi nekk di topp di bëre ak ay mais avant Malick Ndiaye ñu ngi la doon tuddal Onde le Fou man combat boobu laa gënoon a yaakaar ne sax mooy taxaw waaw Onde le ah. Fou moom ragal moo tax jëluma ndax combat bi doon nañ ko dox ku si mel ne Fallou Ndiaye mu ngi doon dox combat boobu mais daf ma xeeb xam nga rek da ngaa tojagul daf ma xeeb quoi xam naa moo loolu mais buñ bu jëloon avance bi nag si lay dàq mun naa ko indil lu lu garaaw lu loo xam mosu ko gis. wax na dëgg parce que Onde dafa jógee ci Ada Fass booy bu bëri coow. waaw Ada Fass boobu nga euh, ñi maasel ñëpp dalee na daan. waaw ñu maasel ñëpp dalee na daan. waaw ah, mais kon loolu moo tax. mais bërëy bokkul looloo tax bëtam jëli la quoi. waaw mais bërëy bokkul. Hmm? bërëy bokkul. Hmm? nga bàyyi nga bàyyi Onde la fu fa nga fa nga fi nga jógee ak nga dugg xaw ma lan moo tane nga bàyyi Onde la fu jël Malick Ndiaye 37. waaw ma ba Onde la fu jëluma ma jël Malick Ndiaye Malick Ndiaye gis naa ko mu lay yuuxu yuuxu yu metti waaw kooku day yuuxu rek ak jaalam bu rey bu ma ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la déggoo ma de kooku kooku day xaar lu bari buñ ko jàppee dañ koy defal affaire day xaar lu cent franc ku day xaar lu bari moo gën a yomb si kooku buñ ko jàppee buñ ko soxla nañ ñëw xoolal ñu defaral ko action bu ñëwee dañ koy Mansour Mansour nga làmb làmb teen la gaa yi di wax ñëpp mbër gaa yi ca biti la ñuy taxaw. yaa ngi jëflanteeg sa waay de. baax na dégg nga barki lu ma la wax rek maanaam sunuy morom mënuñu koo jeexal. moo tax nag dafa war a dafa jot maanaam ñu dugg si cour des grands mais mais Malick Ndiaye noo koy waajee fi mu toll nii. waaw combat ni ma koy waajee muy cour des grands laa dugg. man samay morom mënu ma leen a jeexal comme lu ma la wax. waaw te Malick Ndiaye wax ji moo fi nekk nii rek. parce mhm. que Serigne Touba Mbacke mais kooku xam nga ne kooku. maanaam xam nga rek li mu waroon def si làmb yëpp def na ko waaw te Bou Siteu dafa nekk xale nekk si yoonam. waaw dama mais Malick Ndiaye nag dafa daan ay champion. waaw dafa daan ay ndaanaan moo tax ma jël ko bu fi defu woon dara du ma ko jël. combat bi lan la la jaral. combat bi lu ma jaral muy xam nga maanaam combat bi combat gars yi la Baye Fall yi. combat bi combat gars yi la de. ñamit capit ñambit góorgóorlu waaw. dégg nga gars yi. xam nga góox. góox mooy lan góox dañ koy naan góox ko. capit ñambit ak sëriñ kooku lu garaaw lañ koy def. comment si biir géew la. waa mais mbër sa gars la de. parce que loolu moo ne si man. capit gun-gun. loolu xanaa lu bees la. ah pour mag la pour mag ñi gun-gun. waaw. oo oh, ji na garaaw ngeleej yu ne lay gis parce que maam Seera Fall. waaw naa nga wax ma sa secret tamit tamit parce que dañuy gis yow sa combat. macha allah yow sa combat stade bi day fees. pratiquement boo bëree ba pare sax boo ñibbee stade bi day vide lan mooy waaw secret bi muy maanaam mag lu mu moom nga jox ko lu mu moom nga jox xam nga moo waral sax lii nii nii amaana tey Bou Siteu bu nekkoon fii di ñodde affaire u bandi xam nga mhm. wala xam nga rek respecté wu ma yenn gars yi nii xam nga mhm. amaana tamit du demee nii mhm. waaw man su ma jógee ñëpp ay jóg waa Géejawaay foo xalaat fu ne la nit di jugee di ñëw xam nga waa Gunaas waa Baylaay xam nga waa amoo siis gars yi waa koñ jaxaay bi fii nii xam nga gars yi dañ may dooleel ak kotu saret du nekk fii yëpp waa Corniche mais dégg naa dawal kotu nga woon quoi waaw dawakot seret la woon fii laa doon nekk ah. sam fas fii la nekkoon hmm. waaw doon dawal seret xam nga rek maanaam fii laa débuté fii laa defee lépp fii lañ doon toppee Sakajoor mi ngay dégg fii la doon dawalee seret kooka la Sakajoor numéro 2 ok Sakajoor fii nii la doon dawalee seret sa kii yu bëri nga naan nga naan nga naan moom mooy sa idole quoi waaw mooy sama idole Sakajoor moo suñu idole fii moo la jàngal moo moo ñu jàngal bëree hmm. waaw moo def su ñun bëree. def su ñun fit ak jom. wallaahi kooku dëggalu ma la lamb moo waxul dëgg rek. mais jàmbaar a ngi noonu. dëgg la champion. macha allah wallaahi maa ngi ñaanal nag xam nga yàlla yàlla fëggu boppam. bu baax a baax jàmm. yàlla ko yàlla doolu jàmm. ay ca ñu des sa combat ak euh, Malick ba léegi ñu gis ngeen def benn jàkkaarloo ngeen ngeen def benn ngeen def benn face to ba nga xam ne yéen ñaar ku ci nekk dafa xas-xasloo ku ci nekk dafa wax li mu nar a jëf sa moroom euh, combat bi am ngeen date wala am amagoo leen date. waaw combat maa ngi woo Pape Sarr. Hmm. ne maa ngi dégg date yi gars yi ñu ngi joxe date yi mais suñu mu toll mu ne ma si semaine bii nii dinañ ñu jox date. Hmm. kon xam nga ne loolu la xel bu dal la. du hmm. ne pii pour suñu diggante barke seen tool ma teg ko lu métti. kooku sama diggante maa moom déglu ma la combat soo moytu sax day am moor. ah ëpp naa moor moom bu ci am Serigne Touba Mbacke moor moor moom looy loo yóbbu xeex ngay yóbbu wala bëre wala. xeex laa yóbbu xeex bu saf saf temps yi moom damay liggéey yaa ngi damay jàng xeexu MMA yooyu noonu xeexu tubaab yi. <laughs> taay xeex boobu laay pratiquer. xeexu MMA su boobaa loolu laay indi. non non fii amul weq. wallaahi. ñun suñu bëree Sénégal amul weq. dooru la rek la ma koy teg lu métti daan ko. parce waa Guédiawaye ñëw ñu fere suñu victoire. du mën ak wax jee nekk nii rek. wallaahi mais Malick xam na koy buusate bu baax a baax. ñu gis waa géejawaay def benn 100 pour cent c'est benn 100 pour cent géejawaay gisuñu la ci lu tax. waaw 100 pour cent bi maa ngi si woon mais xam nga rek moo loolu ma maa dem ba xoolaat ba xool xam ne xam nga man foo ma xool visé sama yoon quoi. ma am na leen loo xam te bu ma ko nar top topp ne day indi tardement. Mm-hmm. waaw moo tax ma visé sama yoon ut sama 100 pour cent bop mm-hmm. waaw ma bi gars yi nii lii rek 100 pour cent la. Mm-hmm. wallaahi. waaw maanaam dama nekk si yoon ma am na yu bëri yoo xam ne sax bëgguma sax di ko di ko topp wala ma koy suivre. ok sa relation ak mbër yi nekk biir géejawaay. waaw jàmm la sama relation mbër yëpp. waaw maanaam gars yëpp jàmm laa sekk ak ñoom. wallaahi jàmm ku si am combat yëgal ma ko mu ñëw taxaw la. xam nga mooy loolu su ma amee combat tamit gars yëpp dañuy ñëw jàpp si. waaw di bëggee waa écurie Mor Fadam bu baax a baax a baax. waaw ndaanaan yi nekk foofu champion yi. ku si mel ni ñoom Boy Ndiago xam nga ku si mel ni Tokoro kii mbër la. waaw mooy rakk mbay tënd bi waaw moo toog ne tokoro ndaanaan la mm. xam nga ak jang ibra kii tamit mbër la mais bëreegul aran mm. waaw xam nga bu jógee gars yi dañ siy jàpp wallaahi boo ñëwee sama école du ma fa contact sama morom ay pungal la laay contactal gars yi nii te ñii nii yow boo xoolee ñii doo xool sax di di tëkkale ñii ak Malick Ndiaye barke Serigne Touba Mbacke yow xeeb Malick Ndiaye man damaa nekk sama yoon te du jëmm jooju mooy moo may kale wala moo may téye. Ah. waaw maanaam léegi dama yeewu si làmb bu baax a baax. bu Siteu mi daan ñëw daan fooyee làmb ak bii bokkutul. waaw te parce que xam nga rek dama yeewu léegi. est xam nga combat fi mu la mën a yóbbu. waaw ma mën a yóbbu moom xam naa ko moom ndax combat bi moom fi ma mën a yóbbu moom xam naa ko bu baax a baax. waaw maanaam dina am lu lu bëri lu mu gée sama carrière. waaw li mu laaj tamit lépp yaa ngi koy def. waaw li mu laaj lépp maa ngi koy def. waaw maanaam combat bi moom laa gën a respecté sama combat ma am yëpp. lan moo waral loolu. waaw lu waral loolu muy maanaam adversaire bi. Mhm. te parce que Malick Ndiaye ndaanaan la. Mhm. yow boo xoolee Malick Ndiaye gis nga ndaan champion yi mu fi ah, daan waaw champion la ay ay njaasi de daan soo samay mag yooyu. Mhm. xam nga kon tey jii man bu su ma demee ba tourné bay bëre ak Malick Ndiaye kon man. waaw maanaam sant yàlla la quoi amaana boo fi defu woon dara kon Malick ma jël. prouvé nga quoi. waaw damaa prouvé teel a marqué sama empreinte sax moo tax mu jël sama avance. Mm-hmm. mais Malick Ndiaye ko wax xam-xam ne ndaanaan la. xam nga daan ay champion. waaw combat bi daal damay ñaan rek xam nga ñu gaaw ñu jox date. Mm-hmm. xam nga di nuyu tamit gars yi nekk si Europe bi ñu tëgg combat ku si mel ñoom Alain. Mm-hmm. waa rent dakaar xam nga. di bëggee tamit ñoom Jumbo Pape Sarr xam nga ak yeneen gars yi nekk foofu noonu. ñoom ñoo tëggal làmb ji maa ngi bu baax a baax a baax. Euh, tarkindaa bi lu bees lan lay andi contre Malick Malick Ndiaye. waa lu bees la may indi muy xam nga job bu set tey damaa ubbi bàq bu bees boo xam ne dama si boole wàlla job bu set. job bu set kay. kon li nga bu njëkk setul woon quoi kon li ma doon jobee ay temps dama daan li nga doon job job bu la woon quoi. mais damay indiwaat bàq boo xam ne dama si boole job bu set. waaw bis bu combat maanaam dig may ci dara tuuti ci job bu set. Calmer siifal. ay ca ñu répété ndoo baax ana Calmer. jéggiin job set ay Malick Ndiaye jóob bu set. jóob bu set. jóob bu set. maa ngi def à suivre. parce que bëgguma bàq bi teel a génn gars yi sàcc ko. sama gars yi ambiance bi neex na mais. mais mais mais mais mais sama gars yi li ngeen fi waaye li ngeen fi def dara setu ci. Ah, non non non non mbër mbër lii setul ah. ah. te parce que bëgguñu teel wax am boo xam nga am ñoo xam dañuy sàcc. yow gis nga man lu ma def gars yi pirate ma si TikTok bi. ok moo tax lépp lu may def ma koy denc nëbbu ko. ba ba heure bu waree génn mu génn. mën naa ne lii tuuti la ci li nga war a wane. la lu ndaw la sax lii maanaam lu ndaw la rek. mais am na leneen leneen loo xam te ni après bu bis combat bi ñëwee dinañ ko génnee te parce que amateur am na lu ñuy xaar ci man. waaw maanaam amateur dafa am lu ñuy xaar ci man bu si te mbëru amateur la yow doo dégg gars yi di ko wax. waaw mbëru mbëru amateur yi dañoo yàqamti sama combat. Hmm. wallaahi amateur yi ñuy yàqamti sama combat ñëw. fan nga teg sa bët ci làmb fan nga bëgg a àgg ci lamb waaw fi ma bëgg a egg ci làmb muy don roi des arènes. ah bon maanaam Sakho Dior li mu perte fii nii moom laa bëgg a ji. waaw maanaam saako yor dafa demoon bay waaj a yegg ci yoon bi xam nga dong-dong ñëw xam nga mu am nu mu demee mais maana dama bëgg a ñëw eggal li loolu noonu waaw maanaam si si tànk yooyu noonu laa nekk nii quoi. da a nekk roi des arènes mais maanaam xam nga rek. fii mbër bu fi génn dégg lu ma la ñu si bëri seen xel maanaam day dem ci saako yor. te parce moom bu jugaan fii nii géejawaay fii kenn du dégg kenn du mooy loolu. xam nga kon ba am nu mu demee nii xam nga. parce que Serigne Touba Mbacke mais dañ koy ñaanal rek. Ngom sa Kajoor. waaw mais di ko wax ne ñun ñu ngi si yoon bi. Mm-hmm. te ñu ñooy eggaral kii bi. relève bi relève bi mm-hmm. man si tànk yooy laa nekk quoi. Mm-hmm. waaw. ayca mbër ñu ngi ci jeexantalu émission bi tey su fekkonte ne bii am na loo bëgg na wax te jotuñu la koo laaj lan la. waaw li ma jotoon wax rek muy maanaam Baye Fall yi yi. waaw maanaam gars yi nii ay borom sereer lañ ay kotu waar lañ. dëgg ay góor yàlla lañ ay jàmbaar lañ. waaw mais maanaam dama leen di ñaanal rek di wax ni gars yi nañ waat borom seret xel bu baax te xam ne ay dóor kotu waar lañ waaw ñii ñu ngi si géej di tibu suuf di mm-hmm. dóor waar di liggéey mm-hmm. waaw mais damay contre maanaam gis nit yor seret rek nga koy considéré comme bandi mm-hmm. xam nga man maanaam loolu dama koy contour waaw loolu loolu eh, waaw message boobu daal laa ne daal naa ko joxe pour nit ñi gën a xam nga bàyyi borom seret xel xam ni ku si mel ni Serigne Touba amoon na fas ndeysaan maanaam keneen ak keneen la joor ñooñu xam nga ñooñu ay borom sareet lañu woon kon maanaam nañ bàyyiwaat borom sareet xel bu baax a baax te xam ne ñoom ay jàmbaar lañ ay dóor ko tu waar lañ barke Serigne Touba ay ci sama gars yi loo leen di wax ci loolu waaw kontaan si eh, loolu mbégte kay faxas yoo xas waaw loolu la jàpp yaay borom rangit daw jàpp gaamu jàpp set jàpp set eh, amul yooyu dañ koy def jàpp set rek foofu nooy xam nga di wax ne tamit xam nga ñor na te bu xaaree faat di wax ne tamit xam nga maanaam émission bi nii. Mhm. waaw maanaam amoon na sax nu demee sax di di fi fekk ñu bëri. Mhm. mais dafa am ñu si ñoo xam te ne tamit xam nga ndeysaan maanaam ndogal. ku si mel ni ku si nekk sa ñu gars yi nekk 100 mètres ak campenal. ok ku si mel ni ñoom Ahmed xam fii lañ doon nekk tey ñoom dañoo am nat. xam nga ñoom papa acteur booy di leen ñaanal yàlla leen yàlla defal ñu bàyyi leen xam nga di ñaanal gaa yëpp ñoom magay deer xam nga waa bàyyi laa mm-hmm. mm-hmm. xam nga di leen ñaanal daal yàlla nañ yàlla na leen yàlla dimbale waa ñu génn ci fu ñu nekk mm-hmm. xam nga di ñaanal tamit fan yi nii passé naqar bi ñu am ku ci mel ni con Seck xam nga maa koy ñaanal di ko jaale waale Seck bu baax a baax waaw di ko jaale tamit xam nga famille faramaaren bi mm-hmm. waaw maa ngi koy jaar suñu papa Thione bu baax yàlla xaare ko si àjjana fiir daw si wallaahi Thione Seck maa ngi koy ñaanal dernier kàddu looy yóbbante Malick Ndiaye 37 Fou à travers Leewtoo TV waaw ma rek na suul tànk yi entraînement dama xam ne bisu combat bi maanaam dina gis lu garaaw barke Serigne Touba Mbacke naa ko teg lu metti maanaam la gars dee gars yi lay nax gars yi lay dee amul wallaahi li dee naa la booy bi yaa xamoon wala nii nii nii barki seen bu bis bu bisu combat ne pib di nga gis lu garaaw xam nga di sant tamit Moussa soow Moussa maa koy bëggee baax xam nga jàng Ibra di bëggee gars yi di bëggee tam ki fi romb sànq Cheikh Mbaax nekk port euh, oui bu Siteu moom man ak moom yàgg nañ quoi te bu Siteu moom lu ma wax si yow rek lu ma wax si moom rek dama koy xeeb quoi parce que moom moom borom baax la yàgg nañ tey mbër yi fi nekk yëpp benn lañ tamit xam nga. te bu Siteu champion lañ ñu moom lu may wax rek. Malick Ndiaye 32 fu xaw ma 35 fu am na problème am na problème bu rey ñun instant bi combat bi jot combat bi jot rek moo ñu dese instant bi. combat bi door mu daanu lay doon ñun pare nañ pare nañu. dóor mu daanu lay doon quoi. doon daanu lay doon sax. cinq minutes foofu la yem. jàng Ibra mooy nii. ayca jàng ñaari kàddu rek. waaw di bëggee Baye rek. xam nga maa ngi Ndiaye moom man mbëru comédien laa ko jàppee kuwa. est sa mbër mi mooy mbëru comédien. mooy mbër yooyu di retaan lu amateur yi. mooy Malick ah, waaw. maa ngi koy déglu nag mi ngi wax mi ngi wax affaire la bandi. bandi yaa ngi nii. waaw di liggéey di ñàkk jëriñu. waaw na tey rek. moo gën mu ñuy tegal ay mbapat yi muy bëree ay comme grand frère di génn dimanche dajaloo woo benn booy mu daan la loolu du mbapat kii dañ koy fay kase na teey mi ngi yéeg ci oro boo xam ne xamul fu mu jëm de nga teey rek waaw di bëggee tamit xam nga ku si mel ni président Raymond Bass xam nga moom day jàppale jeunesse su Guédiawaye bi ay sama gars yi préparé leen benn ambiance après bala tàggatoo maa ngi koy sant bu baax di sant ah. Cheikh Mbaax borom Port xam nga mm-hmm. di bëggee tamit Alaaji Naar xam nga Aziz Ndiaye di bëggee Sora Badou Ala Ndiaye xam nga di bëggee tamit waa diaspora bi ku si mel ni ñoom Amet ñoom Alaaji gars yi nekk foofu xam nga xam nga di maanam maanaam géejawaay wallaahi géejawaay gars yi dañu may bu baax baax ku si mel ni ñoom Cheikh Faye xam nga waa mbaaru fee ku si mel ni tamit xam nga ñoom laa ñënga benn booy buy toog fee si café gi ñoom laa ñënga Maguette Dieye xam nga ñoom Baba Rambo xam nga ñoom Abdallah gars yi xam nga Baye Fall ñoom Mara gars yi dañ siy jàpp ayca sama gars yi wallaahi ambiance bi lan la cappi ñamit la ban la Cité, cité le. Amiens. Yóbbu si. Cité, cité le. si. Cité, le. Abdallah ngi Baye Fall baa ngi Baye yi mi ngi noonu ñu ngi woon fii ci marché Ndiarème seet si woon le grand champion Bou Siteu jaajëfal na leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen invité incha allah jaajëf bay awa